lan bikum Moustapha Niass fañ koo tudd ci xab tooxi doona ci ay milliards yu bari turbine yéene kaay ne mook baaba jaw la le réveil yéene kaay ne Moustapha Niass kay liñ ko tudd fa garaaw mbiru ger lu toll ci quarante cinq milliards ci suñu xaalis lépp jëm ci wàllu pétrole bu ñu jaay ci anam goo xam ne jaarut yoon ca réewum Nigéria mook baaba jaawo procès suisse secret moo wax ne société bi ñuy wax aoji fa versé xaalis bu bari ci compte Moustapha Niass ak baaba jaawo ci seen compte banque boo xam ne nee na moom yëgut compte boobu ñuy wax terewut nag moom Moustapha Niass nee na société boobu ñuy wax muy AOG moom fa bokk ca actionnaire ya ca te bàyyi na société boobu ca 2006 Vox Populi Moustapha Niass kay ak Diawo milliardu pétrole yi ca jamonoy Sani Abacha la woon mbir mu garaaw la ah laneen lu garaaw Rose Wardini moom la dal compte banque am yi fañ koo tëj jafe-jafe la am ak wàllug yoon Libération moo ñu xamal ne Rose Wardini ba ca sax immeuble am ba nekk li ko waral mooy Rose a fay xaalis wax Jean Marie Guiyaage lu ëpp ñetti téeméeri million ak benn ki war a jox xaalis bi fa àllaa traité te nga paru la dëkk saa bu ko diggee rek na dana fay du ko def turbine yéene kaay moom it di ñu xamal ne xam na tooxidoona bu amati ci kër docteur yi ginnaaw Louga ak kee Kédougou xam na beneen soxna su doon xam doom mujj faatu ci ak càggante yëf yaa nga amee ca mat la hôpital Matlaboul Fawzayni ca Touba sur sa ay yéene kaay na ko faa lay wax ni yëf yi demee xale bu jigéen bi étudiante la daaw la am baccalauréat ñaar fukki ñett la am soxna jala tudd baayam moo jiite liggéeykat yu hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba léegi bi doomam bi ñëwee war a wasin ñëw ci moroomu docteuram yi na leen kii sama doom la fay xam doom waaye nag bu leen ko opéré ndax fa amee tension bu ngeen ko opéré rek fay dee collègue ya moroomu liggéeykatam ya dàq na ko génnal fi ñuy opéré ca biti na ko gënoon ñoo xam li ñuy def waaye ba muy génn ci la ko docteur ya opéré xale bu jigéen ba faatu waaye nee tuuti ba moom mucc na faatuwut bàyyi ja leen waxoon naa leen bu leen ko opéré yéen a rey sama doom ji waa hôpital ba nee nañ fa doon xam doom faatu na nee na wax leen rek a ko rey leer responsable fararoonu Macky Sall yi àndoon ak moom keroog bi mu demee New York yow seetal opposition bi ay sénégalais moodu moodu yoo xam ne fañ doon yuuxoo Macky Sall New York ñaawlu ni mu yoree réew mi dictateur ak troisième mandat du fi amee loola nag fa naqari woon ñenn ca jege ñaala Macky Sall ya bañ jël ay ponkal nervi ñu jàpp Alassane Sall fañ koo dóor dóor yu métti léegi mu porté leen plainte ca réewum Amérique léeg si ko yéene kaay na la muy sàkku nag ne ko état bu Sénégal fay quatorze milliards ci suñu xaalis ndax Amérique moom ay lañu far loolu amul Amérique de laas yéene kaay na ko faala ci yokkal xanaa xamoo Macky Sall fa mere lool farandooram ya nekk foofu New York ndax seen doxalin keroog bi mu fa demee ñu nekk foofu di xoole ba ñuy yuuxu Macky Sall àdduna bi yëpp di ko gis loolu neexul Macky ñi neexlee gudd nag mooy député yu bees yi assemblée nationale ba léegi amaguñu ay oto de 4x4 ya fa nekkoon seen oto ya 4 x ya fañ leen koo bàyyee l'observateur moo ñu ko yi ne fa ñoo war a waxante dëgg njiiti mi Macky Sall moom benn ngàndaay la yor mooy opposant kum gis na daal mën nga koo gañe nekk président bu Sénégal rek fay fexe ba faagaagal la jaare ko ci wàllug yoon ba doo mën a bokk ci ay wote ah noonu la def Karim Wade cré yi moo ko faagaagal Khalifa Sall caisse d'avance ba moo ko sànk Barthélemy Diaz coowal Ndiaga Diouf lii la bëgg a jaare ba sànk ko ba ci sax Ousmane Sonko mbiru Adji Sarr yi fa la bëgg a jaar ba ko Mamadou Ibra Kane journaliste ca ñu faagaagal Barthélemy Diaz jaare ko ci mbiru Ndiaga Diouf yi wàllug yoon bokk ci ay baaxul ci démocratie gis nga bu ñu waxantee dëgg ab réew fay am nguur ak ku ko jiite am opposant ñoo xam ne ku jégi la ñuy bokk waaye yow opposant bu la sonal rek jaaxal la rek au lieu nga dem ak moom ci ay wote wan ko ko duma sa morom déedéet fa ngay jaar ci wàllu yoon fexe ba du bokk ay wote loolu rafetul fa ñaaw wen ka tër yéen a kaay ne sénégalais ñoom fa ñoo jaaxle ci Macky Sall ni mu doxalee ci mbiru Ndiaga Diouf yi ak Barthélemy Dias ah. yaaw seetal yéen a ngi fàttaliku si jamono yi Ablaye Wade bi ñuy woolu Barthélemy Dias ci wàllug yoon ci mbiru Ndiaga Diouf yi Macky Sall mi njiit réew mi si jamono jooju moo demoon ba kër Barthélemy Dias jël kàddu wax Sénégal yëpp di ko dégg mu ne mbiru Ndiaga Diouf yi wàllug politique la te ñun duñ nangu mukk ñuy tëj Barthélemy Dias di ko jaay doole mu ñaawlu doxalinu Wade ci jamono jooju léegi tey mu nekk président fukki at coow loolu fàtte woon nañ ko léegi ñu sulliwaat ko pour nangu mairie bu Ndakaaru ak député Barthélemy Dias loolu du neex benn sénégalais ndax sénégalais moom bëggul jaay a kaay na Ablaye bi moo tax fa mere Macky ay farandorom ci lay si ko yéen kaay nee nañ poste bi ñu jox Ablaye Balde ca assemblée nationale Ablaye Balde delloon na leen ko nee na bëggut ndax Macky respecté ko te joxu ko cër Aboubacar Dias yi yoroon kàddu UCS moo ko wax ña waxoon ne duñ boole ñaari mandat cumul de mandat muy waa yeewi askan wi wal fajiri yéen kaay mel ni ko naan leen yéen ko fi waxoon de faxe leen bu leen ko def leen di kaay na benn bokk yóbbu ko Thiès ki nekkoon borom Thiès ci ay jamono di Idrissa Seck ëllëgam ca benn bokk yaakaar te mooy yéene kaay nee na fa taq suuf de boo moy tuut Idi Faye génn ci benn bokk yaakaar a ah gars yi wax ne moom li mu juboo woon ak Macky mooy Macky def ko premier ministre 2024 mu yàkkal ko nguur gi nekk seen candidat te Macky falul ko premier ministre 2024 fa aw yoonu laaj ñetteelu mandat kon kay Idi fa ko nar a bàyyi li tax Macky Sall nag moom mënta bàyyi Mariama Sarr moom la l'évidence xëy di laajte ne dëgg-dëgg daal faa xamul lan moo tax Macky bëgg Mariama Sarr yow Mariama Sarr askanu Kaolack ndangaan fañ ko wan ginnaaw mu toll nii waxuñ ca moom dara fañ koo Mansour doyal wan ko ginnaaw a ah, yow wote maire yi passé Mariama Sarr fañ ko mbuqi Kaolack wote député yi weesu fañ ko mbuqi Kaolack commune élection yu dem ànd ak benn bokk yaakaar ñu gañe ko koy fañ ko waroon a sanctionné ànd ak mbuqi yu météo yëpp Macky falaat na ko ministre ci gouvernement bu bees bi l'évidence na man loolu xawma lu tax te responsable APR ya nekk Kaolack ñu bëri jubawuñ ak Mariama Sarr waxuñ ca moom dara rawatina nag responsable jigéen soxna fa xamoon doom ju góor ju mu adopté doom ja màgg muy dem di tëdd doom ja dem ba mu yàgg mu bëgg koo dakkal xale bu góor ba bañ na ko fa ñuy continuer yaa ma ko tàmmal ndaw tooxi doona libération ne fa leen di wax beneen tooxi doona yow seetal benn xale bu jigéen fa xamee faru rab dem ci benn waay buy wax ne fay faj faru rab waaja fa koo dorogee ba pare tëdd ak moom lépp ngir dàq faru rabam wi xale bu jigéen ba mujj koo porter plainte bañ teg ko loxo waaja na dëgg la li ma maa ko def <laughs> waa ma ne tëdd kay ngay sa bopp rek nga ne yéen xale yu jigéen yi fa nga xam faru rab bëgg jëkkër seetal góor gu baax nga ne ko kaa ñu te bu ko laaj dara ku ko ci def am jëkkër de